auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullah taala gannaaw bu ñu sante yàlla ci lim ñu may ñu teewaat bés bu sell bi ñi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaanal suñu sëriñ sëriñ Muntaxa Mbàkke bashir yàlla na fi yàgg te wér di ko ñaanal naa yi nga xam ni def na ko ci lislaam bi ak yoonu sëriñ Tuubaa mu eggale ko ci jàmm gannaaw loolu ñu ngi nuyu suñu mbokk dëkk yi ak suñu mbokku diine yi ñuy fekk ci barab bi mooy suñu waa kër maam Alaaji Malick ak suñu waa kër maam Baye Niass gannaaw loolu sëriñ bi ñu ngi nuyu ak di la ziar sëriñ Modou Mahfous Mbacké bi nga xam ni tey yow la yàlla teg ci kanamu njabootu soxna Maymuna Mbacké di la ziar bu baax di ziar di yóbbante ziar ci suñu sëriñ mun sëñ mun taxa jël ziar bi teg ko ci loxo sëriñ Bass Abdou Khadre mi fi teg gannaaw loolu ñuy ziar njabootu sëñ soxna euh, soxna Maymuna Mbàkke yépp di nuyu suñu xarit Cheikh Abdou Ahad Mbàkke Gaynde Fatma mi nekk président comité d'organisation bés bi tey ak ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi sëriñ bi ñëw nañu wuy si tey ci bés bii nga yàgg a woote ak ci guddi gu barkeel bii ci guddi yu laylatul xadr ma ànd ci ak gouverneur de la région de Diourbel Mouhamadou Moustapha Ndaw ànd ci ak le directeur de cabinet adjoint du président la République le professeur Demba juuf ànd ci ak kilifa yi nekk ci tund bi yëpp mun naa wax tund Bawol te Ablaye Mbaye Peex lim leen léegi ñu am mbégte nag teewal fii président de la république son excellence Macky Sall ci guddi gu màgg gi ñu ciy fàttaliku suñu maam maam soxna Maymuna Mbàkke bintu Cheikhul Xadim di kenn ci njabootu sëriñ Touba. di royukaay ci soxna yépp ci jikkoom yu rafet ya ak nangoo jëfe ndigal bi nga xam ne ni moo tax tey guddi gi am guddi gi firnde la ci loolu ndax xam nañ ne soxna si mi ngi ko def ci ndigalu magam ja sëriñ fàllu mbàkke waaye aussi ci ndigalu kilifaam gi maam Cheikh Awa Balla Mbacké te ren ji ñuy célébrer soixante onzième anniversaire sëriñ bi gëm nañ ne nangu gu suñu boroom nangu ab liggéeyam moo waral tey moo waral tey tey fu ñu tuddee layesul xadar xel yépp dem ci soxna Maymuna Mbàkke di ko xam ni daa bokk ci nit ñu baax ñi nga xam ni sëriñ bi wax na seen melokaan ci xasida yi te ñoom seen àdduna yépp ni ñu koy waxee ci nasaraan dañu joxoon li ñuy tuddee le sens de l'existence parce que gëm nañ ne ñoom jàmmu yàlla rek moo indi nit ci kaw suuf te bés bii bokk na ci li ko firndeel bokk na ci li ko firndeel it ba tey mooy néew na nga gis soxna may Maymuna Mbàkke te gisloo mu yor ab kaamil ci ay loxoom yu sell yooyu kon ni mu fonke woon alxuraan fonke ke guddi gi suñu borom wàcce alxuraan te suñu borom wax ne moo gën junni guddi moo tax suñu fu président Macky Sall yónnee yabalee suñu xel dina ci dal te dinañ si sawar lool te am nañ yaakaar lool ci ni fii luñ fi ñaan suñu borom dina ko def ci barke guddi gi ak ci barke soxna su tedd soosu kon sëriñ Modou Mahfous président nee na nga ñaanal ko mu mottali yéeneem ci liggéeyal Sénégal te ñaanal yàlla saxal fi jàmm te def fi xewal ci nawet bi ñu jublu mu nekk nawetu jàmm te jàpp nañ ni soo ko ñaanee dina am ndax soxna si ñu fi dajale ak aw turam di may Maymuna soo ko doon tekki ci wolof mooy xéwal bisu boroom xewal nag ci guddi gu barke gi di laytul xaddar gëm nañ ne luñ ci ñaan yàlla def ko kon Mbàkke ñi ngi lay ñaan ñu ngi lay suñu loxo di sàkku ci yow ñaan di sàkku si njabootu sëriñ tubaab bi fi teew yëpp ñu ñaanal président Macky Sall ñaanal réew mi jàmm ak xewal asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu monsieur le ministre jërëjëf wax ji rafet na waaye li ci gën a am solo mooy yar bi nga ko yar ku yaru nga te président de la république bi la yebal ku yaru la